أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ànd ak yéen ci baaqa min rawdi rasul baaqa min rawdi rasul mooy cabb fleur cabb benn bouquet fleur boo xam ne samedi bu nekk ci waxtu wi dina am kenn ci saxaaba yi ku dem ci jardin wu yonent bi wittal ñu fa benn fruit daan ñu koy indil daan ñu koy jox comme añ nañ ba pare ñu désero ko tey sahaaba bi ñu indil hadis bi mooy abu moussa al ashari samedi bi passé tamit dafa mel ne moom moo ñu indiloon pomme bi tey moo ñu indil banaana bi samedi bu nekk ci waxtu wi bu ñu añee ba pare kenn ci sahaaba yonent bi dinañu ziyaar si indil ñu benn bouquet ci jardin wu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wi tëlluñu ko muy benn xadis tey abu moussa mu ngi ñu indil xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di soññ ab jullit ci biir këram mu fay jaamu yàlla mu fay màggal yàlla mu fay tudd yàlla abu moussa al ashari nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mathalul bayti lledi yuzkaru llahu fiihi ka masalil ka masalil
حي
masalul bayti lledi yuzkaru fiihi yuzkaru llaha fiihi والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت abu moussa nee na yonent bi nee na abu moussa nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mathalu lan mooy mathalu misaal day joxe misaal mathalu yàlla ci bëri na ci alquran fu muy joxe masala ah ay amsaal yu bëri yàlla da koy joxe fii tamit yonent bi day joxe misaal lan lay joxe misaal albayt albayt mooy lan kër kër kër jullit allazi kër gi nga xam ne yuzkarullah fiihi dañ fay tudd yàlla kër goo xam ne kenn du fa teg musique kenn du fa fecc kenn du fa njaaloo kër gi kenn du fi mooy yàlla kër gi dañ fay jaamu yàlla kër gi dañ fay tudd yàlla kër gi alquran lañ fay teg kër gi zikrillah lañ fay def mbokk yi xam ngeen kër googu nan la yonent bi wax ci kër yi wal baytu allazi laa yuzkaru llah fii ak kër gi nga xam ne kenn du fa tudd yàlla ñaari kër yooyu lan mooy seen différence masalul xayi wal mayit mi ngi mel ne ku dund ak ku dee kër gu ñuy jaamu yàlla dafa tudd yàlla kër googu mi ngi dund kër gu ñuy teg musique guddeeg bëccëg di fa njaaloo yàlla di fa njaaloo mooy yàlla ah góor ñi jigéen ñi jaxasoo fa kër googu dañoo dee mbokk jullit yi suñ ñëwee ci leeral tuuti rek hadis bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam indil ñu mu ne haza ablagu l ahadisi fi bayaani fadli zikri hadis bi moo gën a jottali ci hadis yi jàngale fàttaliku yàlla tudd yàlla hadis bi moo ci gën a jot fii bayaan hadis bi day leeral fadlu zikri ngëneelu tudd yàlla haysu jaala az zikru bi masabati ruux lil jasad lan moo tax ñu ne hadis bi moo gën a jottali ci hadis yëpp yi waxtaane ci zikri hadis bi moo gën a jot lu tax ndax hadis bi dafa jël zikr daal di koy jox ruu wàccuwaayu ruu xam ngeen ne yaram bu amul ruu lu ñuy wax yaram su amul ruu lu ñuy wax daa dee yaram su amul ruu lu ñuy wax yaram su amul ruu lu ñuy wax néew a ngi nii néew soo déggee ñu ne néew baa ngi nii ñëbb rek te kër gi bu ci kenn deewoon ñu koy génne ci kër gi di ko yóbbu ci jàkka ja suñu rombee mbedd bi da nga dégg ñu ne néew baa nga nee kenn dox nit kaa nga nee lan moo tax ñu ne néew baa ngi nee waxuñu nit kaa ngi nee lu tax parce que amul ruu moo tax kër gu ñuy tudd yàlla kër googu dañoo am ruu ruu ruu fu mu nekk lu fay nekk dund ruu fu mu nekk rek dund moo fa nekk mi ngi mel ne kër goo xam ne dafa am courant nan la ñuy xàmmee kër gu am courant kër gu amul courant leeraay bi kër gu ñuy tudd yàlla ak kër gu ñuy tudd dundul tudd yàlla mi ngi mel ni kër gu leer ak kër gu lëndëm kër goo xam ne dafa am ñu dund ak kër goo xam ne ñu dee ñoo fa nekk léegi nag mbokk yi suñu doon xool suñu kër yi wër ñu lan la ñuy lan la ñuy lan la ñuy àtte kër yi kër yi wër ñu yëpp ak suñu kër gii ak kër yi ñu wër yëpp bu ñu leen doon àtte ban ci hadis bii lan la ñuy jox kër yi kër yi dañoo dund wala kër yi dañoo dee dañoo dee kër yi dañoo dee mbokk yi kër dañ koy dundal kër ku fa dugg rek war nga xam ne kër gi ay jullit a fi nekk xale yi mag ñi góor ñi jigéen ñi soo dee tëll ci digg kër gi war ngaa xam ne kër gi këru jullit la noo koy xamee
dañuy jàng yaa ngi gis alxuraan mi ngi fa diine ngi fa jigéen ñaa ngi muuru wax kër gi amul coow amul yuuxu koo dégg muy wax ci kaw rek turu yàlla ngay dégg waaye xam ngeen ne gis bi suñ ci doon àtte sunu bopp ñun ñii lan la ñuy jox sunu kër gi ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata not not not bu ñu doon may not sunu kër gi diis lañ ñu laaj boo doon may kër gi not loo koy may boo doon may kër gi not loo koy may boo doon may kër gi not loo koy may un boo doon may kër gi not loo koy may
neuf virgule boo doon may kër gi not loo koy may cinq léegi nag yéen ñëpp lii ngeen wax te yéen nag yéen a dëkk ci kër gi kon ça veut dire que yéen yéen a yàq kër gi
neuf waaw
ça veut dire que kon yéen kër gi dafa dee yéen yéen a ko rey ndax yéen yéen a rey kër gi yéen a dëkk ci kër gi yéen a waroon kër gi leer yéen a waroon kër gi dund diine yéen a dëkk ci kër gi lëndëmal kër gi rey kër gi def kër gi këru ñu dee ah, loolu passé na yéen dañoo bëgg nag léegi demee naa ni kër gi dundaat kër gi na dund li passé yàlla nañ ko yàlla jéggal dañoo bëgg ginnaaw li comme rey ngeen kër gi ba kër gi dee léegi yàlla dimbal nañu kër gi ñu ngi koy dundalaat mbokk yi man ak yéen yëpp ñun ñoo ci bokk yem man damaa bokk ci ñi rey kër gi ngeen bokk ci ñi rey kër gi léegi nag comme ñun xam nañ ne suñu kër dafa dee ñun ñëpp yëg nañ loolu ba tax ñu jógaat jóg bu bees ñu ñaan yàlla li passé yàlla nañ ko yàlla dimbal jàppale leen ma ma jàppale leen ñu dundal kër gi ndax suñu kër mel ne kër gu nga xam ne dañ ciy tudd yàlla yonent bi nee na kër googu dafa dund
sam mbokk yi euh, waqad samma allahu azza wa jalla kitaabahu al aziz ruuxan suñ demee ci alquran yàlla tuddee na téeréem bi ruux lan moo tax yàlla tuddee ko ruux parce que téere bi ku ko jàng rek mu dundal la wa kazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina moo tax yàlla ne yow yonent bi ba ma la bëggee dundal dama laa jox ruux ruux fu mu nekk rek mu dund mbokk yi def leen ci kër gi ruux waay mbokk yi def leen ci kër gi ruux fa kullama kaana al abd aksara dhikra allahi taala kaana aksaru ihsaasan doomu aadama suy tudd yàlla rek day am yëg-yëg day am yëg-yëg seetlu ngeen leen am na lu ma seetlu bu ñuy julli fajar bu ñu sëlmalee du ma gis kenn def askar lu ko waral ah seetlu ngeen leen kenn ci yéen du wëri ba ne man nangam nangam xaaral nag ma ñëw toog jàng sama diine mbokk yi nañ leen dundalaat kër gi kër gi de borom da koo dundaloon kër gi 1968 lañ fi ñëw ci kër gi borom samp fi daara ba ni mu génnee àdduna alxuraan musul arrêté ci kër gi yéen ngeen ñëw remplacé ko fay kër gi Messi Jordan Balla Gaye Saneex Kouthia Sanjoogu ngeen remplacé li fi borom kër gi defoon na ngeen ragal yàlla ngeen xam ne bisa ngi ñëw di ngeen dajeeg borom kër gi di ngeen layoo moom yow man xiyaamati ndax moom diine la xamoon diine la jàngale 68 la fi dugg ba ni mu génne àdduna ñu bari xamuñu ko ci kër gi mbokk yi dundalaat leen seen kër yi ku nekk ci ñun na ragal yàlla ku nekk ci ñun bul ne diw moo rey kër gi déedéet da nga naan man maa rey kër gi man mii man maa rey kër gi kii ne maa rey kër gi ñun ñëpp ku nekk ci ñun boo jàppee ne yow yaa rey kër gi nga jàpp ne war nga kaa dundalaat kër gi war naa dundal kon nañu yëg ne ñun ñëpp dañoo rey kër gi ñu bokk ànd dundalaat kër gi sëriñ bu ñuy wax ibnul qayyim wax na ci benn téere bu tudd waabilu sayib ani zikri nee na annahu yuwarrasu xayaatul qalb tudd yàlla day tax xol dund tudd yàlla day tax xol dund gis nga kër guñ dund tudd yàlla xeex moo fay nekk ak xuloo guddeeg bëccëg loo teg ñu sàcc ko lekk boo teg ñu lekk ko kër gi du set dafay tilim kër gi day lëndëm kër yi xol gi day xat ñëpp dañuy koo gis rek kanamam a ngi lëndëm dañuy xeex di xuloo guddeeg bëccëg lu tax parce que kër gi amul ruux mu ne seyxul islaam ibnu taymiya rahimahullah wax na moom tamit ci téeréem nee na tudd yàlla tabaraka wa taala az zikru lil qulub mislul maai lis samak az zikru lil qulub mislul maai lis samak loolu mooy lan tudd yàlla nan la nuru lan lay nuru mooy jën ci biir ndox jën soo ko buggee rey noo koy def ah da nga koy génne ci ndox rek jaru nga koy dóor paaka jaru nga koy dóor yat génne ko ci ndox rek teg ñaata minute ay seconde rek jën bi daal di dee lu tax jën bi dee parce que nekkatul ci ndox noonu la tudd yàlla mel kër gu ñuy tudd yàlla kër gi day dund waaye kër gu ñuy tudd gu dul tudd yàlla kër ga dee na ñi fa nekk dañuy dox rek waaye dañoo dee ñoom ñëpp dañuy yëngatu noonu xam nga léeg-léeg nga gis ku dee kuy dox léeg-léeg nit dina dee nga gis ko muy dox moo tax dañuy xëy rek ne la dee na fekk rek yëngu koy gis dafa deewoon da doon mottali guuxu ndox yim fi dese ak danku ceeb yim fi dese la doon mottali day xëy rek ñu ne la dee na léegi nga naan léegi léegi la ma romb waaw danku ceeb bi mu dese woon moom la doon lekk tey rek pour dee après wala daggitu mburu bi mu waroon lekk sëriñ boobu nee na ba tey bu ngeen bëggee xam dëgg dëgg tudd yàlla bu leen ko jàpp rek ci ndox ci jën waaye fa kayfa yakunu xaalu samak ida faaraqa al ma lan mooy seen xalaat ci jën suñ ko génnee ci biir ndox wa qad zakara al musannif al hadis bi lafzayni hadis bi ñëw na ñaari yoon riwaaye bu njëkk bi mooy biñ jàngoon samedi bi passé mooy masalul lazi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuruhu ka masalil hayyi wal mayit tey ñëw na masalul baytul lazi yuzkarullaha fiihi ñaari riwaaye la la borom téere bi indi ci ci ci hadis yu wuute yi waaye ñoom ñaar ñëpp al lafzul awal fiihi tasabbu azakiri bil hayy bu njëkk bi dafay nural kii tudd yàlla comme kuy dund al lafzu saani tasbihul bayt azakir bil hayy beneen baat bi tey dafa jël kër gi daal di koy nuróog ñuy dund kon ñaari nit a ngi nii ki dëkk ci kër gi di tudd yàlla kër gi ñuy tudd yàlla xoolal ne ko loolu ban bénéfice la kër gi day dund waa jiy dund waaye bu fekkee da ngaa dëkk ci kër tuddoo yàlla kër gi kenn du ci tuddoo yàlla kër sax mën nga cee dëkk yow tuddoo yàlla waaye ay nit nekk ci kër gi di tudd yàlla kër gi dund lu tax ndax dafa am ñu fay tudd yàlla léegi nag yow booy nelaw ci kër tuddoo yàlla kër gi ñi nga ñi nga fi nekkal ñëpp kenn tuddul yàlla kër googu nu muy mel kër googu nit ñi fa nekk dañoo dee kër ga daa dee kër yooyu nag yàlla nañu ci yàlla musal te yaakaar naa ne yéen bëggu leen seen kër gi mel noonu da ngeen a bëgg seen kër dund bokk ci këru jullit yi nekk na ci benn téere bu tudd Mada- madaariju saalikiin mu ne ann al qalbu zakir kal hayyi fil buyut fil buyut al ahya ann qalbu zakir xolu kii tudd yàlla kal hayyi fi buyutil ahya mi ngi mel ne kuy dund kuy dund ci këru ñuy dund kuy dund bu nekkee ci këru ñuy dund ndax kenn ci ñoom dina am problème ah ah du am problème waaye nag ku dee léegi bu nekkee ci biir ñuy dund nag ñuy dund ñu dañ am problème wala du ñu am problème fi mu nekk nii bu ñu amoon ni bu ñu doon ku dee teg ko fii ñun ñoom lu ñuy mel ñëpp dañuy gêné wu ñun ñëpp dañuy xat kenn dootul nekk en l'aise kon même sunu kër gi bu ñu ci amee kenn ku dul jaamu yàlla kenn ku dul tudd yàlla kon kooku daa dee ci su nekk ci biir ñuy dund yaakaar naa ne ñun ak yéen yëpp kenn ku ci nekk ci moom war naa xalaat loolu bàyyi ko xel pour ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla tabaraka wa taala mu ne wal gaafilu kal mayit fil buyuutil amwaat wala rayba anna abdaanul gaafiliin qubuurun li quluubihim mbokk yi sëriñ bi nee na wal gaafilu ku sàggan doo tudd yàlla mu ne kal mayit mu ngi mel ne ku dee fii buyuutil amwaat ci kër ñu dee ku dee bu ñu ko yóbbee armeel ya ndax problème dina am lu tax problème du am ndax ñu dee la fekk ñoom ñëpp a noppi kenn du la jël kenn ku nekk yaa ngi sax wax ne teeg waaye kuy dund bu ñu ko yóbboon ci armeel yi tey dëkkloo ko foofu nu muy mel kuy dund ñu bàyyi ba guddi ñu ne jugal la ci morgue bi yaa ngi ñu dee ñi ñu ne ràpp tëj amoon na bi ñuy garder koñ bi yéen a ngi fàttaliku bi ñuy garder koñ bi boobu waa koñ bi ku ñu jàpp dañ lay yóbbu ci morgue jàkk ji daal lay tëj sàcc am benn bis ñu jàpp benn waay bu sant sow wala saar wala caam léegi nag bi ko gaa yi dugalee ci morgue bi ne ko dafa dafa ndànk de kees gi dafa am ku dee ku ci nekk nga dégg sàcc bi naan woyooy woy kaa leen dimbali ma waay woy sàcc bi di yuux sàcc bi yuuxoom yi moo yee koñ bi ndax dañ ko ne dañ ko dugal ba pare tëj ko rek ne ko nag xam nga ci morgue bi nga nekk te ci kees gi dafa am ku fa nekk rek sàcc bi di yuuxu di yuuxu ci kaw ba waa koñ bi yëpp yeewu wooy wooy xeetali leen ma waay wooy bu leen ma dugal fii waay yóbbu leen ma police ah neexatul de sàcc bu naan yóbbu leen ma police day tey lañ ko mës a gis looloo tax mbokk yi ñun ñëpp dañoo war a ànd dundal sunu sunu kër ah mu ne alxaafilu quburuhum quburan li qulubihim ann abdaan alxaafilin quburun li qulubihim gis nga ñëpp ñoo xam dañoo sàggan duñu tudd yàlla seen xol yi ay bàmmeel la wa qulubuhum fiha kal amwaat seeni xol dafa mel ne ñu dee dafa mel ne ñu dee ñu nekk seen biir bàmmeel wa qulubuhum fiha kal amwaat fil qubur suñ jëlee ku dee yóbbu armeele du am problème suñ jëlee kuy dund dugal ko ci kër guy nit ñi di dund du am problème waaye buñ jëlee ku dee fanaan loo koy ñuy dund du dem buñ jëlee ku dund ñu yóbbu ko ci armeel yi du dem armeel yi tamit buñ fa sullee kenn indi ko ci kër gi du dem moo tax fi mu ne soo dee rek ñu génne yóbbu ak morgue ba su bët setee ñu yóbbu ci armée li moo tax mbokk yi dee ku dul jaamu yàlla rek da ngaa dee benn borom xam-xam nee na fa nisyaanu zikrullahi mawtu qulubihim fàtte tudd yàlla day tax xol dee wa ajsaamuhum qabla alqubuuri qubuurun képp ku tudd yàlla sa bàmmeel bi balaa sa yaram bi balaa muy dem bàmmeel bàmmeel la ba pare wa ajsaamuhum seen yaram yi qabla alqubuuri qubuurun sa yaram bi balaa ñu ko yóbbu bàmmeel yi di ko suul da ngaa dee ba pare ndax yonent bi nee na yow da ngaa dee amatoo yëg-yëg ci yàlla bëggatoo diine dootoo dem jàkk ah waaw tey yow bu la doon laaj foo julee tisbaar foo julee tisbaar foo julee tisbaar foo julee tisbaar mu ngoog gis nga mu ne wa arwaahum wa arwaahuhum fi wahshatin min jusuumihim mu ne wa arwaahuhum seen yaram ya fii waxshatin ci wéetaay min jusumihim ca seen yaram ya ndeysaan seen yaram ya dañoo wéet lu tax seen yaram ya dañoo wéet ndax xol yaa dee wa laysa lahum hatta nushuru nushurun nee na yowmal qiyaam ñii bu ñuy dekki sax duñu dekki ndeysaan ndax dañuy rus jàkkaarloog yàlla ñoom indi luñu indi wuñu dara xam nga nu mu mel tey boo tukki woon nga dem États-Unis wala nga dem France wala nga dem dem fenn fu am xaalis léegi nag nga def fa fanweeri at ngay ñibbisi nga wàcc aéroport yoroo dara waaw ñu refule la ndeysaan nga ñëw loo yor benn kilo mburu ak benn pot chocolat ñu ne la loo indi nga ni mu ngi nii ndax sa waa kër ñi la doon teeru ñi doon wax ndeysaan bu ñëwee ñu daaneel kër gi bu ñëwee paa bi doon wax bu ñëwee ma jaay sama fas bi jënd jënd 4-4 maire bi naan bu ñëwee ma dem màkk nga ñëw ñu ne la loo indi. nga ne peentoo nga indi. kon nan leen ragal yàlla ñu góorgóorlu mbokk yi wa sababul mawti lan mooy tax nit dee lu bari mooy xillatul xasaa li tax nit ñi di dee lu bari mooy ñàkk a lekk. wa sababul jafa qillatul ma saa yoo gisee fu wow lan moo tax mu wow ndox moo fa nekkul kon nag fa man ibtaxa najaat min mawtil qulub fal yuksir min zikrillah képp koo xam ne bëgg nga sa xol rëcc ci dee del tudd yàlla képp koo xam ne bëgg nga sa xol rëcc ci dee del tudd yàlla keroog waxoon naa leen ngeen ut waxtu wu ngeen di tudd yàlla ñaari fan ngeen ko def arrêté léegi bu leen ko defee di groupe ku nekk ne ko defal boppam comme bu ngeen ko defee groupe du dem defal leen ko seen bopp ku nekk loolu waxtu woo xam ne day toog tudd yàlla kon naa leen ngeen def ko groupe di def askaru saba ak askarul masa su ngeen jullee fajar ba pare ngeen def ko su ngeen jullee timis ba pare ngeen def ko léegi kon amatu leen temps boobu dootu mënatu leen ko ku nekk ne ko defal boppam xanaa ñu essayé boog foofu lan moo leen tere bu ngeen jullee fajar ba pare ngeen jël seen téere def askaru sabah balaa ngeen xëy su ngeen wàccee balaa ngeen tëdd ngeen def askaru masa istaqim aywa kon fa ma ibtaxan najaat képp ci ñun ku bëgg sauver min al mawt al qalb fal yuksir min zikrillah borom téere bi tudd ibnul qayim nee na ci téere boobu tudd alwaabilu sayib ci tudd yàlla nee na annahu quutul quluub war ruux mbokk yi lan mooy dundal yaram yaram lan moo koy dundal yaram lan moo koy dundal lekk ak lan ak naan dangaa bëgg sa yaram dund dangaa bëgg a pataa del lekk del naan dangaa bëgg sa ruu dund del tudd yàlla del jaamu yàlla sa ruu dund moo tax sëriñ bi nee na annahu quutul quluub war ruux ñaar yi ruux ak xol xam ngeen lan moo koy dundal tudd yàlla tabaraka wa taala fa ida faqadahu l abdu saara manzilatul jismi saa yu nit ñàkkee tudd yàlla rek yaramam mujj na nekk comme kër googu nga xam ne kenn du fa tudd yàlla lu tax ida xiila baynahu wa bayna quutihi dox nañ sa digganteeg sa dund yow doomu aadama sa digganteeg sa dund li lay dundal li ngay lekk li ngay naan buñ la ko teree nooy mel da ngay jeex yooyu commencé feebar kon nag su yow tamit suñ la teree tudd yàlla tuba tabaraka wa taala yëgal ni am nga problème ixwatal iman tàmm leen tudd yàlla tabaraka wa taala tàmmal leen seen làmmiñ yi tudd yàlla dee leen tudd yàlla suba maratan salaatul fajri yonent bi alayhi salaatu salaam julli na benn yoon suba summa jalasa yazkurullaha taala mu toog di tudd yàlla ba bët set ila qaribin min intisaafin nahaar kon bu ngeen julleetee balaa ngeen jóg def leen seen askaaru sabaax su leen yàlla maye ngeen gudd fan ba timis jot ngeen def askaaru masa waaye bu leen fàtte diggante julli am nay askaar am na askaar baada salaam am na askaarul akli am na askaarul nawmi am na askaarul istiqaaz am na askaaru duxulul xammaam am na askaaru xurujul bayt am na askaar rukubu sayaara bu leen yaakaar ne tudd yàlla da ngay coori naat astaghfirullah astaghfirullah bismillah déedéet sooy lekk ngay tudd yàlla booy naan nga tudd yàlla booy génn ci kër gi tudd yàlla booy duggaat ci biir kër gi booy dugg ci duus bi tudd yàlla booy génn ci duus bi booy tëdd booy yeewoo booy génn ci oto booy dugg ci oto lu nekk da ngay tudd yàlla booy dugg jàkk booy génn jàkk maanaam zikri yi booy sol yére booy simmeeku lu nekk rek boo koy def war ngaa tudd yàlla kon bu leen yaakaaree zikr gis nga te ne loolu mooy dundal kër kër xam nga li koy dundal mooy kuy dugg ci kër gi tudd yàlla kuy dugg ci néeg bi tudd yàlla ku dugg ci kër gi nuyu waa kër gi asalaamualeykum wa rahmatullah waa kër gi yem ne waaleykum xolal ku dugg ci kër ne yàlla na ngeen am jàmm asalaamualeykum wa rahmatullah mooy lan waa kër gi ne la waaleykum salaam wa rahmatullah yow tamit yàlla nga am jàmm kër googu ñuy ñaanalante jàmm yàlla ngeen am jàmm yàlla nga am jàmm kër googu jàmm rek moo fa ne waaye kër goo xam ne dañoo ne asalaamaaleykum yàlla musiba këpp seen kaw ñu ne ko waaleykum ak yooyu ñoo ne asalaamaaleykum yàlla ngeen dee ñooñu tamit ne ko waaleykum yow tamit yàlla nga dee kër googu ndax lu fay am kon mbokk yi yal na nu yàlla sàmm yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko nanu góorgóorlu topp sunu diine bu nu ko dara jaral fa inna fi lqulubi qaswa laa yuzibuha illa zikrillah yonent bi nee na xol dina wow koŋ baraw weñ yonent bi nee na xam nga lan mooy nooyal xol bi tudd yàlla xol dina wow ko mel ne xeer yonent bi moo ko wax ñu ne yonent lan mooy nooyal xol boobu mu ne tudd yàlla kon fa yanbaghi lil abd an yudaawi qaswata qalbihi bi zikrillah da ngaa feebar sa xol bi dafa wow fexeel nga faj ko ci tudd yàlla boo tuddee yàlla une semaine xol bi normal feebar bi daal di dañ sa yaram bi dafa dee fexeel nga fajoo tudd yàlla sa kër dafa lëndëm fexeel nga leeral ko ci tudd yàlla noonu la jullit di def incha allah bi iznillah dinañ fi teg benn cadeau pour semaine bi ki fi ëpp li mu tudd yàlla ñu jox ko ko bu ñu amaatee dars tey la samedi samedi lañ amaat dars bi iznillahi tabaraka wa taala dinañ seetlu di xool di dugg ci ruq yi di xool kan moo toog di tudd yàlla kan moo jàng kan moo nuyoo kan moo dugg ci duus wax nangam kan mooy tëgg wax nangam bu ñu xamee bu ñu demee ba xam ki nga xam ne semaine bi moom moo ëpp li mu ko fi def incha allah bi iznillahi tabaraka wa taala ñu daal di jël cadeau bu rëy bu mag a mag a mag daal di koy teg ci loxoom xam ngeen ne jàkka ja maa ngi fay yóbbu ay cadeau maa ngi fay yóbbu ay montre maa ngi fay yóbbu lu nekk maa ngi ko fa yóbbu fa yóbbu ay téere di fa yóbbu parfum di fa yóbbu lu nekk loolu mun naa koo xaaj ci digg bi indi fii di jox tamit gars yi ci cadeau yi bi isnillah kon cadeau bi du ma ko wax dinaa noppi ba bis ba samedi ma génne ko teg fii ma laajte man tamit damay seetlu dinaa dugg ci suuf wax ak ñi ci waa suuf nañ ma dimbali ak ñi ci kaw nañ ma dimbali ñu xool ku ñu gis rek su ma laajtee bu ñu ma ko waxee bu ñu ñëwee fii bu ñu taree darsi bi ba pare ma daal di koy jox asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu am la